Imam Ahmadou Makhtar Kanté maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp foofu ci euh, Rewmi FM. voilà Imam Ahmadou Makhtar Kanté laaj bu njëkk bu ma lay euh, laaj di nekk vol à main bi amee fële euh, ca diwaanu mbuur ci week bi ba tax ñetti nit ñàkk ci seen bakkan am ñu ci jële ay gaañu gaañu yu metti mbir mi laal ay commerçant lan nga ci xalaat exactement. waaw lu metti la kay euh, d'abord li ñuy tàmbale rek mooy yónnee sunu njaal njaboot yi nga xam ne yëpp lu metti lii dal leen ndax amul kenn koo xam ne yaa ngi yeewu suba dem di daan sa doole te fekk bëggoo dellu ci sa njaboot léegi nag mu am ay saay-saay yoo xam ne ñoom euh, bëgg lu yomb day saan euh, jiital àdduna yaakaar ne ñoo war nañu mën a jël ay fetal ak ay jumtukaay yu ni mel dem di faaga faagaagal ay bakkanu doomu aadama loolu ñaaw la lu tiis la Euh, loo xam ni musiba la boo xam ni réew mi yëpp war nañ jóg taxaw ci euh, ngir loolu bu fi jógee mu nekk lu fi euh, lu fi néew donc kooku loolu mu def noonu ñaawteef la rek ak bëgg teg loxoom ci alalu jàmbur ngir mën ko jëfandikoo kon nag le comme teg nañ ko loxo baax na réew mu civilisé noonu lay doxe mooy ñu jàpp ko waruñ ko woon bàyyi nit ñi ko faat noonu ci mbedd mi mel ne mala lu mën a def tamit nit la boo xam ni def na njaafam yoo xam ni yoon wax na luñ ko war a atte nañ ko dem yóbbu euh, atte ko léegi nag réew mi na ñëpp jóg ku nekk fa nga war a taxawee réew mi ci wàllu euh, sécurité wàllu euh, dal ak jàmm ak sàmm jàmm nit ñi ku nekk taxawee ca lan ca war a taxawee Euh, mbir mi nag euh, coow li affaire faux la ci échange faux billets la jóge euh, ñu gis ni depuis quelque temps ay scandale yoo xam ne dinañ si tudd faux billets bari na pour yow lan moo ko waral bari bi nga xamante ne faux billets yi bari nañ ko ci biir société bi sénégalaise. waaw faux yoo xam ne dañ ci tudd sax ba tudd ci sax ay kilifa. tudd nañ ci fii sax ay député ay ma lan nag lan ay ay artistes ay daanaka ak kii ay sportif daanaka sax léegi doo toog ñaari semaine déggoo ñu tudd phobie yi tudd ci ay ñoo xam ne sax da yaakaar ni nekkuñ ci yooyu euh, mooy wane lan euh, àdduna la rek parce que phobie boo nee phobie mooy xaalis rek xaalis bu jaarul yoon ba pare nga nga bëgg ko jëfandikoo euh, maanaam jàpp ne daal nit ñi dañoo dof moo tax ñu yeewu dem di wuti lu lew di ñaq di sonn yow nga jàpp ne koon war ngaa mën a dajale xaalis boo xam ne jaarul yoon di ci faj say soxla su ko defee nag nit ki bu tollee ci xaal boobu lu nekk da koy sañ euh, comme ni waajooju def léegi su ko defee loolu léegi bëri na la ci réew mi lool lool lool am na ay ay ay at bi nga toog fii Dakar Sénégal benn yoon nga koy dégg wala yu ni mel mais léegi daw toog benn semaine ñaari semaine ni ngay gisee tamit pour man Dakar fi mu nekk ni fi xaalis di di di doxee di dugg di génn muy xaalis bu bu bu sell ak bu sellul man daf ma jaaxal parce que foo jàdd fa nekk nii di nga gis benn lu ñu tuddee banque wala lu ñu tuddee luy niru banque yooyu yëpp ay milliards moo nekk ci biir xaalis boobu yëpp fan la jógee xaalis boobu yëpp lu tax mu mën a dugg Sénégal nii ci nu mu yombe nii te ci réew tubaab bi tey pour nga dugal fa tey jii benn benn cent euros sax tey boo ko buggee dugal France wala benn cent dollars États-Unis sax boo moytu di nga wax lu leer nañ waxuma la nag yenn xaalis yi di circuler Dakar kon nag Dakar plaque tournante la léegi ci drogue ak faux billets loolu autorité yi war ci jóg ñu waxtaanee ko vraiment taxaw ci taxaw bu euh, bu fees euh, pour que loolu bañ a ëppi loxo. Euh, beneen scandale boo xam ni am na laal collège Sacré-Cœur ay élèves yoo xam ne ci collège boobu la ñuy jàngee am vidéo boo xam ne depuis quelque jours mu ngi circuler ci réseau sociaux yi ñu koy woowee sex tape nekkaat problème mu mœurs mais laalaat ñi nga xamante ni ñooy ndaw yi. loo si waaw yaakaaruma ni. Mhm. Euh, du ma ko jéem a seetaan bëgguma ko seetaan mais euh, yaakaaruma ni dana wute ak li xewoon bu yàggul rek ci mixa xaw ma cité bi fële. waaw mixa euh, waaw mhm. du wute ak loolu yëpp xale lay doon rek ak tamit bu bi am ci mbuur fan yële. waaw gis nga xam ne ni mu ngi tegaloo noonu. Mhm. du wute même chose bi lay nekk rek ay futteekoo ay nangam ak nangam yooyu rek lay doon. mais li li li li ñu war a njëkk wax tamit mooy nii boo xoolee tey Sénégal ñu ëpp ci askan bi ah, te bari lool euh, ñan la euh, ndaw yi euh, tout tànk yi dañ naan téeméeri sénégalais tey loolu la jàngat bi wane études yi juróom-ñaar fukki yi amuñu fanweeri at te boo seetee ci ñi amul fanweeri at yooyu nga xool encore ñi nga xam ne ñu ngi ci fukki at ak juróom jëm ci ñaar fukki at ak ñaar fukki at juróom ñoo gën a bari encore ñu mel noonu nag tolluwaayu xale ñëpp xam nañ lu ne da ciy xew donc su ko defee rawatina nag ñu nekk ci àdduna bu ubbeeku boo xam ne tey Euh, boo nee connexion rek wax nga njaaxum yëpp euh, donte woon euh, mën nga connecté yi jàng ci say leçon xale boo xam ne dafa bëgg jàng dafa bëgg avancer ci découverte ci lecture aussi mën na ci progresser bu baax ci connexion tamit xale boo xam ni xëy na yaruñ ko wala dafa féeterlu ba dugg ci ay yeneen ñooñu ñooy daje noonu naan génn seen kër waajur ndeysaan seen waajur fayal leen école lu cher wutal leen yëre yu rafet dugal leen ci ay oto luwe leen ay taxi wala lu ne ne ñu ngi jàngi nekkete yoo bu demee école ñu génn après école ba dugg ci yeneen yoo xam ni. boo mm-hmm. dëgg yàlla jafe na nag euh, nga mën koo contrôler cent pour cent loolu amul fenn ci àdduna bi yëpp donc euh, tolluwaayu xale dafa xaw doy waar li ñuy wax mooy euh, parents yi nañu gën a bàyyi xel seen i doom seen i àndandoor fréquentation yi yar seen doom gën leen bàyyi xel école yeeg fépp fu xale yi di dem responsable yi fa nekk ñoom tam ay éducateurs lañu. nañu gën di xool comportement xale yi bu amee lu ci louche lu ci xaw doy waar ñu ñu bàyyi leen xel mais dëgg-dëgg jafe na nga ne xale yi ñu topp leen fépp fu ñu daje rek ñu topp leen fépp fu ñu dem ñu xam fan la et loolu day jafe kon responsabilité bi parents yi éducateurs yi euh, médias yi autorité publiques yi aussi lu jëm ci wàllu accès ci yenn sites yeeg yooyu Sénégal daanaka defuñ ci dara alors que même Europe ñoom ñu ngi liggéey. par euh, France bu ma yàggul ñu ngi doon wax ne du ñu bàyyi kenn mu mën a accéder WhatsApp xale yi te amagul 16 ans xoolal ñu ngi def ay effort ci wàll boobu euh, donc war nañ gën a waxtaanee euh, wàll boobu. Euh, beneen mbir boo xam ne tamit mu ngi ci xolu actualité bi ñu bëri di dal euh, ci kaw Wally Seck ak euh, DJ Boubs gannaaw soirée boo xam ne ñu ngi ko doon amal ci week bi fii ci Ndakaaru ay danseuse brésilienne ñëw fa ak colin gu doy waar actuellement nag ñëpp moom la ñuy daal di coow lan moo tax loolu war a poser problème Imam Ahmadou Makhtar Kanté. ah dafa wuuteeg rek ñun li bëgg ci sunu réew ak sunuy valeur Euh, parce que mënoo fii euh, nekk ne dañuy yar suñuy doom bu ñu jëlee ka boobu euh, jigéen yooyu fëtteeku ñun xam nga duñ jàngal suñuy doom yooyu ñu ngi leen di jàngal col ko bu yiw jàngal fonk sa bopp am kersa ci nit ñi et cetera loolu nag mënoo ne mooy sa valeur ba pare nag léegi ay doomu réew mi comme ñoo ñu tudd aussi ñëw di di di di fi di fi di fi organiser loo xam ne day màbb valeur yooyu loolu mooy suñu contradiction ñun te te te valeur balaa ngay xam ne gëm nga ko dëgg anti valeur ñëw nga taxaw xeex ak moom wan ko ni du ma nangu. Mhm. loolu la man mii ki nga njëkk a tudd noonu waali lool loolu laa jàppante woon moom. Mhm. dama ni new ma ni nangam la wala nangam la dama ni day jàllale yoo xam ni dafay màbb suñuy valeur. Mhm. ba loolu indi coow gis ngeen fa mu mujjee mu citation directement après ñoom ñu waxtaan seen biir ba génnaat ci et cetera et kon li ma doon wax yëpp yi laa doon bañ après ñu ne woy imaam bi ñoo bëri wax nañ bàyyi réew mi état laïque la na nangam après ñu ne imaam yi dee leen wax gis nga réew maa ngi tas xal gis nga li ñu hmm. defaat nii ma ne wàlla lañ kon nag léegi lii nii am ah war na tax encore euh, surtout euh, chef religieux yi ak euh, association religieuses yi ak sax même ñu dul association religieuse te bëgg réew mi ñu sàmm yenn valeurs yi ak tamit man féministes yi sax dañ ma jaaxal. Mm-hmm. yu mel ni doo leen ci dégg de. doo leen ci dégg waaw man loolu du ma jaaxal waaw parce que gëmuñu ko gëmuñu affaire euh, dëgg-dëgg euh, valeur ñoom li ñu gëm mooy euh, jigéen na mel nu ko neex bu ko dara tënk. liberté liberté de disposer de son corps nangam nangam loolu encore sax beneen débat la mais lu mel ni baax na ñu coow ko ah coow ñi nga xam ne ñoo ko organiser baax na ay sàmm jikko ay jamra ñu wax ci. nee naa la lu tuuti li fi des encore ci kerse ak valeur lu mel ne Samba Jikko ak euh, Jamra te lu ne dañ leen koy wax buñ ci taxawul euh, réew mi tas. beneen mbir tamit euh, affaire Cheikh Ahmed Cissé fiñ ñu nii mi ngi ci kaso bi ndax waa ONG Jamra euh, ñoo ko porté plainte moom nag da doon wax ni faaw ñu jël ay préservatif euh, di ko séddale si si si jàkk yi si jumaa yi ne imaam yi nañ ko def mu nekk wax bu bu doy waar yow naka nga gisee wax bi ak jàpp bi ñu ko jàpp est-ce que yaa ngi koy rafetlu. maa ngi koy rafetlu bu baax lu mu gën a yàgg foofu baax na parce poson rek la wax. ak luy yàq rek njaboot bi ak ñàkk kersa ak tegginu jàkka ak lañ war a def ci jàkka moom muy wax ne lii lañ fa war a def euh, moom war na bàyyi dem jàkka moom ba tuub doog am sañ-sañ dellu fa euh, li mu wax ne moom la imaam yi war a def moom mooy jox léegi imaam yi boobu rôle euh, li ma tuddee woon ci benn article la gestion technique du péché mm-hmm. mooy préservatif ci ku ko jël te xam ne waroo ko jël parce que bu dee ci l'islam la am na fu jëkkër ak jabar di tool mën nañ ko jël mais euh, bu fekkoon moom loolu rek la bëgg maanaam jàngale lislaam ba wane ni préservatif am na fu muy toll loolu dañ koy jàngale mën nañ ko xutba hmm. mën nañ ko jàngale ci ay plateau télévision et cetera et cetera kii moom caaxaan rek ak kannasu ak ñàkk teggin ci lan mooy fonction wu jàkk yàlla xam na ni jàkk ak euh, ak imam yi ñoo ñoo ñoo ñoo ñooy sàmm valeur yi euh, bu ko defee boo demee ba ba soobantal ba ñàkkal fayda jàkk ak imaam yi ci yu mel nii Euh, ndax nombre de vues ndax siiw yow sa bopp yaa ñàkk fayda et que euh, lu la daal rek yaa tooñ sa bopp léegi bu ko defee euh, Jamra am nañ droit bu baax a baax au nom de la communauté musulmane waaw waaw ñun ñëpp lañ ñu porter plainte waa ji dégg naa ay param génn nañ ci jégalu ak yooyu waaw mais moom ci boppam moo a jégalu ba pare nekk nit nekk jullit bañ a gàcceel jullit yi ak listam ak valeurs yi ñu yu ñu gëm Euh, gratuité préservatif euh, France Emmanuel Macron si boppam moo ko wax nee na ko am dix-huit ans euh, jëm vingt-cinq ans boo demee ci pharmacie danañ la jox préservative te doo fay dara euh, loolu naka nga ko gisee surtout que France société française dafa am influence ci société sénégalaise. bu baax sax. te gis nga te gis nga loolu Macron def foofu man dama ne sunu yoon ñëwu ci tànk seen réew la. man looloo ma jaaxal lu tax tubaab bi man tubaab yi féeterlu bi ñu féeterlu dégg nga fatt adduna bi ak seen programme LGBT bi la platénis pla maa ngi ko tuddee planétarisation de la LGBT benn gox la amoon yàlla këpp ko léegi nag ñii nee nañ nañ ko nag def ci àdduna bi yëpp ku ko deful tey ñu indi la ay problème fatt la xoola xoola xoola coupe du monde bi Qatar nañ ko bëgg a LGBTiser ah mhm. mais lii mooy lan donc lii du ay caaxaan kon ñun imaam yeeg yooyu bu ñuy wax ci lu mel nii nit ñi buñ foog ne ay wax yu superficiel la ñuy wax wala bëgg wax mais lii benn réalité la benn agenda la bu nekk nii ñëpp gis nañ ko léegi kon nag léegi réew mu nekk nañu góorgóorlu moo tax wala temps yi Indonésie ñoom au contraire dañu def seen constitution léegi ni int mm. xaraamal nañu ci seen constitution relation sexuelle hors mariage mm. ma ne sama benn xarit moo doon waxtaan ma ne ko aka ñu ko ñëw muus mm. mu ne mm-hmm. du euh, loolu dugg ci góor góor bu ñu sëy dugg ci mu ne ma waaw ko voilà tubaab bi lañu fente foofu mm-hmm. kon nag euh, kii tamit euh, Russie Euh, ñoom tam def nañ ne mariage hétérosexuel góor ak jigéen la ñuy tuddee sëy mm-hmm. ci ci kon xeex bu métti la États-Unis tam ñu ngi ciy xeex France surtout nag moom mooy réew mi xam ne côté boobu moom ci ginnaaw liberté lu ñu dugal ko mais seen affaire la mais nañ ñu bàyyi ak sunu ñun tamit kañ la ñuy moom suñu bopp moom sa bopp du rek euh, woy am naa samay député bopp am naa président mais moom sa bopp mooy say valeur li nga gëm sa réew li nga bëgg mu doxee ak la fay dagan la fa dul dagan nga def ko ci sa constitution ñu may la jàmm nga doxal loolu Euh, loolu moo war a tax nag France yi muy def nii suñ yoon neewu ci feek euh, ñëwuñ nañu yéen tamit def leen ni ñun. Euh, dernière question Imam Ahmadou Makhtar Kanté di affaire Pape euh, Alé Euh, di journaliste bi nga xam ne actuellement ñu ngi ko tëye ci kaso bi parce que dañoo jàpp ne dafa fësal ay xabaar yu mu war a fës yu mu warul fësal dafa fësal ay documents euh, confidentiels yu warul génn euh, yow lu si sa sa xalaat est-ce que d'accord nga ci réewu Sénégal ñu fi tëj journaliste waaw wala déet. ah kay waaw d'accord naa ci réewu Sénégal ñu tëj képp koo xam ni yoon moo ne nañ ko tëj muy Pape Alé Niang muy Imam Kanté muy keneen. loolu mooy égalité citoyenne devant la loi su fekkee bëggatuñ loolu nañ ko dindi benn waaye na ma dé dama koy wax ga Sénégal yi lan lañ bëgg lan lañ bëgg loi bu amee ak réglementation dañ koy appliquer euh, te ñëpp a ci war a yem euh, am na benn code buy réglementer le secteur du journalisme amul benn secteur bu amul réglementation kon kon jaay doole am ak tappale ak def la neex adduna bi yëpp pays yi ñu gën a démocratique yëpp am nañu euh, réglementation ci wàllu journalisme et cetera donc léegi nag euh, nañ bàyyi journaliste ñu def seen liggéey librement mais en même temps aussi euh, ñu yam fii euh, loi bi wax tant que loi bi soppiwuñ ko ci côté bi wala côté bi donc man bu ma gëstoo ba laajte aussi li ma gis mooy que ni Pape Alé Niang li mu génnee comme ay information jalgati na yoon ci wàll boobu donc bu loi dalee ci kawam man jàpp ma ne dañ koo tooñ wala dañ koo jaay doole wala li ñenn ñi di wax dafa féete ak benn camp politique moo tax et man kenn dugal sama bopp yu mel noonu donc Euh, par contre léegi yéenewu ma ko mu nekk ci kaso ba euh, jàpp naa ni journaliste la boo xam ni euh, bu xereñ la war na mën a def liggéeyam mais ci yoon li ma tuddee ci yoon rek mooy de façon professionnelle léegi nag bu ko defee nañu jéem a lijjanti bu fekkee ni daan bi mën nañ ko woyofal teel ko bàyyi mu dellu këram loolu mooy li léegi nag man conseil bi ma koy jox mooy na rester professionnel parce que wax dëgg yàlla ku gis Pape Alé sorti yi muy def di nga xam ne dafa féete lool ci benn côté contre lool beneen côté donc loolu nekkatul journaliste bu fekkee ne léegi dafa bëgg jël position politique kon léegi na sol mbubb ku yore communication politique bu benn camp politique amul benn problème ñëpp xamee ko noonu mais bu ne man journaliste la sama liggéey journaliste laay def Euh, kon euh, na ko def ci ni ko euh, déontologie journaliste la laaje Euh, est-ce que euh, tamit dañu dañu gisoon benn déclaration bu président Sall defoon imam euh, di wax ni moom si nguuram euh, duñ cité journaliste bi moment bi muy def déclaration ne amul benn journaliste boo xam ni ci liggéeyam def na ko nekk ci kaso bi tey jii ñu gis ñu tëj Pape Alé Niang ñu ne wax boobu kon dëppoowul ak fait bi nga xam ne moo am fii ci Sénégal loolu loo si wax le fait que Macky waxoon loolu li am tey. ah man dama yaakaar ni. ba muy wax loolu jubluwu ci ne journaliste bu nekk mën nga fee wax lu la neex def lu la neex duñ la fi tëj yaakaar ma ni loolu la ci jublu woon euh, dama foog ni li mu jublu woon mooy journaliste bu def liggéeyam ci ni ko loi bi organiser kenn du ko fi tëj waaw xam nga réew nag fu nekk ni moom dafa metti loolu parce que foog nga wax ne fi laa féete kii laa àndal kii la contre te man kenn du ma dugal ci lool bi nga fi nekk nii waxal nag pour Sonko nga wala contre Sonko pro Macky nga wala contre Macky dictature boobu du ma ko nangu parce que Macky Sonko bay gënuñu nit ñi gënuñu bëgg Sénégal man ni Imam Kanté yow moom di ma di ma di ma def sa liggéey du ko nangu donc man parce que façon wax boobu yaakaar ma ni Macky Sall war na mën a wax ni euh, journal bu dee loolu la Macky Sall war na wax te ne fi benn imam kenn du ko fi tëj te nañ fi ay imam du jeex du xaaj ba ba loolu ba ñu ngi ci ba fi nii sax tey donc loolu yaakaar ni wax boobu même su ko waxoon yaakaaruma ni loolu la jublu bu ko waxoon tamit kon dugal na boppam problème comme affaire troisième mandat bi moo waxoon na fi loo xam ne tey bu ko bëggee teggi tamit dina dugal boppam parce que waxoon na fi lu leer du du ma def trois mandat léegi nag comme tam bu fekkee tam moo fi waxoon ni wéy dafay jaay démocrate wax lu neex tubaab yi Sénégal boo fi ëpp liberté duñu fi tëj journal yi fekkee noonu la ko waxee woon tamit kon tam dugal na boppam léegi nag mais yaakaaruma ni quand euh, war na mën a wax ni am na benn secteur muy journaliste muy keneen euh, réew moo xam ni kenn du fi tëj benn médecin kenn benn imam benn journaliste kon kenn kon nag léegi loi sax warul am moom Euh, donc je crois que non noonu la war a demee mais daal principe bi mooy loolu mooy Sénégal man gis naa ni jox nañ bu baax liberté presse bu baax a baax man def naa benn poste boo xam dama ne globalement la liberté de la presse n'est pas menacée au Sénégal maa ngi ci dëgër ba tey ba ñu démontrer le contraire ba ñu démontrer le contraire donc léegi nag le fait que de temps en temps c'est vrai ñu am jafe-jafe ci benn journaliste wala benn conférence de presse nangam nangam am ci réew yëpp sax day am mais globalement Sénégal Euh, par rapport ak yeneen dëkk ci wàllu liberté de de de presse. Imam Ahmadou Makhtar Kanté maa ngi lay remercier ci waxtaan wu am solo wi. di nekk toujours rek à votre disposition. voilà euh, kon may fàttali imam Ahmadou Makhtar Kanté imam la chercheur nekki tamit écrivain.